jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV waaye mbokki internet yi bàyyi Lutte TV tey fekk si nañ borom xam-xam jàmbaar muy sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar si ku ne xam na ne tabaski dafa jub si mu jël ay xar yu bëree bëree bëri jënd ko di ko jox jaami yàlla yi. am na oto boo xamante ni yeb nañ ko mi ngi noonu di dem fa nga xamante ni moom mooy ca Saalum waaye tey dafa am gan gu mag gan goo xamante ni surprise la mi ngi nii ci ginnaaw danañ ko wane tuuti. ci kanam bu sëriñ bi nuyoowee tey danañ waxtaanee xam-xam waaye sëriñ bi nee na ma xarum tabaski bu ñu ko reyee bu ñu ko sànneeti am na lu nekk ci biir ay secret yoo xamante ni mën naa defar dunduk aadama dunduk doomu aadama tey nag sëñ bi ah, damay laaj secret yooyu lan la gannaaw ba nga nuyoo week askan wi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bokki improd bokki Lutte TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla tawfiix ak sutura ah tey nag nga fekk nu fii ci sunu place sunu daral daralu sëriñ Cissé mu sëriñ kër si daral gi nag dafa wuteek daral yu bari ndax daral gi ci sunu ginnaaw pour jaam ñi nga xam ne yàlla daa def seen loxo ñàkk a jote seen ginnaaw ak sunu nit yu bopp mhm. ndax ikiri dafa am. Mhm. man dama am ikiri. daral gi ikiri lan. man dama am ikiri sama nitu bopp. ak woy néew doole yi yi nga xam ne danoo yaakaar Serigne Cissé mu sëñ Babacar. Mhm. ndax am réew boo ca fekk bokkee. Mhm. danga ngaa war a bokk ci ñey soutenir waa réew ma. ak sey niti bopp yi. moo tax may la man dama am ikiri. si li ma jaaxal mooy. Mm-hmm. Euh, daral gi boobu ba léegi gis nañ fi ay xar. te xar yi toll nañ fi ñu war a toll. Mm-hmm. nga ne ma benn xar du ci mbëkkee lu tax loolu dafa am secret boo ci def wala dafa am lu xew. waa xam nga xar yi. Mm-hmm. xar la yoo xam ne dañ leen di dugal ci benn digg. leen fa. ba heure bi jot ñu génne leen pour jaam yàlla yi. ñu lijjanti leen ko. yenentu yàlla Ibrahima moo tëroon Ismaïla. bala ca xew xew ca. ci maanaam njëriñal nit. ba nit ni mu poussé ba ni xar ñëwee. kon xar yi boo leen di joxee da ngay seet xar yi nga xam ne. xaru qualité la ñu. nga may ko jàmm ñi. waaye yëkkati xar yoo xamut fu nu jógee ci réew mi. nga yëkkati ay jaamu yàlla jox leen ko tudde ne jox nga leen ndawal te fekk derub kese nga leen jox. gis naa xar yoo xam dañoo percé ñëw Dakar. bari nañ fi lool ci ay xar yoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee ak kenn xamul leen di dugal ci dëkk bi kon nag sama xar yi. boo ko gisee da nga xam ne bokkul ak yeneen xar yi. Mhm. man su may nit li nga xam ne moom laay jox sama bopp moom laa leen di jox. Mhm. kon bu ko defee xar yi bokkut ak yeneen xar yooyee. te boo ci jël da nga xam ne xar mi xar munu yafa la di ko jox ngooñ ak ripaas ak yeneen ya ca aajow di ko ñàkk ba mu yegg si fi ñu ko soxlaa. Mhm. ñu joxe ko. nga dem xarum tabaski bu ñu ko rayatee bu ñu ko sànni. nañ la déglu laata ñu ñëw ci point boobu euh, damay indi gan gi nga xamante ni euh, am nga ko muy sa xarit di sa soppe muy liiru Diane euh, liiru dañ koy andil siège mu ñëw nii toog ñu am ay kàddu ñu leeral moom nag mu ni maa la ca fa nga xamante ni mooy géejawaay bi mu jógee États-Unis yàggul am na wax joo xamante ni war nañ ko seeq mu nekk waxtaan woo xamante ni wu am solo la liiru maaleykum salaam ngi siyaara. dégg daaj. maa ngi ziar bu wér. liiru ñu ngi lay ziar di la bàyyi nga nuyoog askan wi waaye di la wax ne la tey ñëw nga ci dara daralu sa xarit sëriñ Cissé mu sëñ Babacar Sy. waaw dégg maa lay ziar di nuyu di nuyu Madoune Diouf ñoom sëñ Cissé mu sëñ Babacar. Mhm. kii sama sëriñ la sama xarit la. Mhm. te tey boolewul noonu ak moom dañoo yàgg. Mhm. voilà lii. du ma ne gulet. Mhm. yàgg da koo def. Mhm. xëy na dañ ci doog teg seen bët. Mhm. daaw gisoon nañ ko. te dañ ciy doog te teg tey nag mu jënd ay xar yu baree baree bari. def géttam fii. ndeysaan di ko jox ay nitam. ak ñi nga xamee ni. seen loxo jotul seen ginnaaw. ma lu ko lool. te dem di ko ñaanal. lu mu mën ren. yàlla na ko mun ay ati ati ati at yàgg koo def ndax yàgg naa def lu baax man xam naa sëñ Cissé je connais très bien sëñ Cissé mm. mu sëñ ba ku xamul nag xamul mm. waaye man xam naa moom xam na yàlla xam na sama xarit la sama sëriñ la mm. nëbbu ma ko làqu ma ko sama diggante moom àdduna bépp xam nañ ko àdduna bépp xam nañ ko tey nag su defee lii woo ma bu ma ñëw mu yëkkati xar jox ma dama ciy kontaan mm-hmm. dama ciy kontaan vraiment sama xol di ci sedd guy di ko ñaanal bu baax a baax a baaxa a baax sànq da nga def acte bu que euh, sëñ bi def ne sama xar yi may joxe bëgguma ko ko filmer nga ne ko sëñ bi maa la ko ñaan ba presque sax jooy nga ci dama bëgg ñu filmer ko lu tax nga wax loolu. waaw ku def lu baax. Mhm. lu baax mhm. mhm. dañ koy fësal. lu bon la ñuy nëbb waaye lu baax dañ koy fësal. voilà te man sama diggante ak moom àdduna bépp xam nañ ko sëñ Cissé mu sëñ Babacar su defee lu baax nag. dama ko da nga koy fësal. waaw da nga koy fësal. ni mu ko bëggoon defee at man ni ma ko bëggee eh, ma ne ko déedéet il faut ñu fësal ko. voilà moo tax ma daal ñëw jóge Wakaam. la def gétt. Mhm. di ko joxee ay nit ñu jóge fi sori. mu def baax am pod la des koy weer. kon baax na yaa ko wax xam nga dégg. dañ koy weer ay dégg daaj. Ah, liiru euh, xar maa ngi noonu macha allah yàlla na la jik yàlla na ko tabaski ak. jàmm ak Bordeaux ak Balla te ku ne xam na ne Balla sa rakk la euh, ñoom ñaar dañoo war a bëre euh, le set tey lan ngay dénk jëmm ji toog mooy Serigne Cissé mais sa rakk Balla Gaye tamit lan nga koy conseillé parce que fan yii tamit géej waay ba ngay neex. waaw tubaarkàlla macha allah. macha la ñoo ngi sant yàlla bu baax. di préparer la 7 août di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam lu sedd guy. waaw lu ci war sooba yàlla dinañ ko def sooba yàlla. ndax fi mu ne nii gis nga mbër mi. gisatoo ko fenn ci ay tëkk toog ak vidéo gisoo statique dara. nga làqatu te combat bi am na fu ko teg. te combat bi jaral nañu. waaw ndax ki ñuy bëreel dafa bëri wax. ki ñuy bëreel dafa bëri wax te tekkatu xel la tekkatu xel la voilà fan yi maa ngi ko génn mu génn ci tiktok bi naan man door la ak yooyu moom a daa ko téeméer yoon mais ban problème ngeen am yaa Gris Bordeaux rien aw maag moom benn problème dóorkat la ah? waaw bu mag a mag a mag bu mag dóorkat bu mag a mag a mag a mag a mag mag la man maa la wax loolu yow li nga wax ni bu taxawee man nga cee dellu dimbali ma nga ama su tax mën nga cee daal lan mooy su taxawee mën nga cee daal dam kat mooy gi damaa faale Gris Bordeaux man dama lijjanti Gris Bordeaux amul allah ku par dama ko lijjanti man nga am allah ku par. mais gii dafa bëri doole xoolal dimbali ma nga dafa bëri amul du biir rek am nga am dafa bëri doole. daa biir. biir rek ban taxawaay la ci sëñ Cissé kii sama sëriñ la sama xarit la te lu ma nekk ne nekk dina ma ci jàppale baax a baax incha allah rabbi sooba yàlla. Mhm. sama sëriñ la sama xarit la te lu ma nekk mu nekk ca sama waay la voilà ki may woo chaque année di mu ñëw di ma joxum xarum tabaski. Mhm. kon xam nga lu ma nekk mu nekk ca. Mhm. ah koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ñoon daal ñoo ngi pare le 7 août yàlla suturaal te musal ñu ci làmmeñ ak cat ak saytaan du dóor kenn mu daanu. dóor mu daanu la wax kan lay dóor muy daanu. nee na sax day mbéj bàll moom. booy dama lay bu ma fon waaw dama lay bu ma waaw non déglu ma dégg daaj waaw bu ma waxaat loolu waaw dama lay wax rek man giri lijjantiwu ma ko faalewu ma ko du dara moom mooy dóorkat bu mag bi ah. waaw dóorkat la bu mag a mag mag a mag Gris bu mag dóorkat la du tus du dara y a rien fait liiru dama lay bàyyi nga jël euh, sa xar parce que booba léegi euh, ñi ngi may signaler ne ñi ne ko war a jàppale yegsi nañ woto baa nga ni taxaw ci ginnaaw bu ko defee nag ñu continuer émission bi parce que sëñ Cissé bëgg naa koo laaj ci lan mooy njariñul xaru tabaski balaa boobu lan mooy sa mot de la fin. waaw di leen sant di leen gërëm di ko ñaanal tamit. Mhm. Euh, yàlla defal ko jàmm. Mhm. ndax du ma ne guléet. Mhm. waaw yàgg na ma koo defal daal. sama sëriñ la sama xarit la. voilà sama waay la moom xam na man xam naa yàlla xam na. yàlla na yàlla suturaal te mu sunu cat yàgg na koo def daal ndax gis naa ni muy taxawoo diine ji. gis naa lu baax li muy def tamit daal. man daal sama sëriñ la sama xarit la. Ah, <laughs> sama waay la moom xam na je connais très bien. sëñ Cissé mu sëñ Babacar je connais yow li nga wax nii maasoo ko ci kaw de. je connais très bien nga ne ma maasoo ko ci kaw dégg ah. waaw sama sëriñ la sama xarit la yàlla ko yàlla defal jàmm kontaan naa ci nan dama jël xar bi nga jàppale hmm. ci sa jëmm ji waaye euh, kuy mi ngi ko jox tamit macha allah mais bi hmm. euh, yan njariñ moo nekk ci xaru tabaski xam nga euh, nit ñi nag hmm. ñaare borom bi dana def ñu am xar jëndee xar ma valeur bu seer te ma ca nekk ci biir xamuñu ko te fekk xar yi yàlla day def li ci nekk ci mbóot derub xaru tabaski kenn du ko sànni derub xaru tabaski kenn kenn du ko sànni ndax njëriñ ya ca nekk kon xaru tabaski yow mi nga xam ne danga bëgg alal gis nga xarum tabaski buñ ko rendee ba pare gis nga mbàqali mm-hmm. mbàqali ci boppam mm-hmm. mbaq gi mbaq gi. maanaam bu nu ko feesee biir bi. loole ñuy génne ci biir. bu fekkee ni nit dafa bëgg a woote woo lu mel ni mbooloo ak bayre ak alal. waaw gis nga sébbit moomee. am na lu nu koy booleel. ak a gaaw ci xëcc mbooloo ak alal. allahu xarum tabaski. Ah. munu rey ci biirub tabaski. waaw sébbit mooma di génne ca biir ba. nga fexe ba am ca. waaw am na aaya bu nu koy booleeg. alal dina la wuyusu mhm. te nit dootu la liggéeyati te li ci nekk ci mbot lépp kenn du ko leeral sax ci émission mais am na lu may dégg nga ko doon wax ci res bi xarum tabaski res ba gis nga xarum tabaski ba ci foie boobu mhm. muy res ba mhm. bu nu ko rendee ba pare res boobu am na lu ñu cay liggéey waaye loolu yëfu biir la xarum tabaski amul lenn loo xam ne luñ ci sànni la nekku ci loolu ci li muy dox res bi. bi day yokk kaaraangeeg nit ki. kaaraangeeg nit ki. nit ki. ba nga xam ne yow ci sa jëm bopp ni la resub xar di wumpee na mu nekkee ci biir ba. Mhm. yow bu la nit doon wër fi mu toll bëgg laa def naka su noonu noonu la la mbir ma di umpee. Mhm. kon dafa bëri ci ay ngëneel yoo xam ne da caa nekk gis nga boo ko bindee ba pare. Mhm. res ba ci boppam. kenn du ko jël noonu sànni ko. Mhm. dangay fexe am ko boo ko amee. da nga koy fexe boo ko saafee noonu xam nga day nekk ba woo bu woowee noonu nag. Mhm. ngay fexe dëbb ko def comme sunguf sunguf soosee nag. Mhm. képp kum dem ci sa yaram ku la liggéey te deeta bu la nit doon war du la gis alaaj dégg. sëñ bi lan nga ñu mën a wax ci derub xaru tabaski. derub xaru tabaski. am na ci ndomba goo xam ne tey bu ma ko doon ëw bu ma jeexalee deru xaru tabaski mënatu ko joxe. deru xarum tabaski rek lañ koy ëw te xar ma xarum benn melo lay doon. benn melo kon loolu looy choisir la. benn melo gis ko ci daral waaw ndax man yooyu bokk na ci yi nga xam ne dama ko yittewoo. Mm-hmm. ndax bari ñoo xam ne dañ ma dañ ma koy liggéeyloo. Mm-hmm. muy ci ndomba goo xam dañ koy joxe waaye ndomba ci xarum deru tabaski lañ koy wé. Mm-hmm. gis nga ba ci web yi nga xam ne xar mi boo ko kiiyee web bu nekk ci kii ba boo ko dindee. nga fexe moom it la muy ànd nga sul ko ci sa biir kër lu bon du fa nekk ba ilaa yu mit bons gis nga xarum tabaski ba ci yow mi nga xam ne danga am problème mu néewum kàttan ci wàllum ngóora mm-hmm. euh, maanaam euh, euh, nu ma ko mën a tuddee muy muy muy muy suufam nga mm-hmm. dégg nga waaw suufam nga nañ yem foofu waaw nañ yem foofa ndax wax rafetal ko baax na ca loola ci wàllu ngóora dana cay dox dox goo xam ne gu am solo alaaj dégg mm-hmm. sëñ bi nga ne xeex dëgg bokk na ci li koy def mooy xar mi buñ ko rendee muy fippu di fippu ba suuful bu mujj ba nga ne suuful boobu am na secret bu ñu ciy liggéey boo xamante ni ci xeex rek lay dox waa xam nga gis nga xar boo buñ ko reendee ba pare fi nga xam ne fa la ñuy dajale bu dee dëkk ba nag la xaw ma nag ndakaaru gi bu dee dëkk ba dañuy gas mel noonu kan. kan moome mu xaw a gàtt. fa ñu fa paak ba di jam noona gis nga foofa. suuf boobee boo ko amee. yow mi nga xam ne pax moomee suuf moomee fi paaka bi di tegu. mooy pax mi pax moomee. nga ki nga xam ne caabi da ko féetee ginnaaw. suuf boobee. bu ko amee. wut xobi gijaan ak yemi ànd ak. def ko sunguf képp kuñ ko jox yaw doo ko demee doo ko demee toilette ca kaso ko moom incha allah sa kër nga jëm direct. lan moo tax daaw nga ne ma xarum tabaski buñ ko rayetee bu ñu sànni béjjén ya non non ya sox ak woote boo ko bëggee wutil béjjénum xarum tabaski waaye béjjén ba nag du doon béjjén bu ñuul béjjén bu weex lay doon kon xar mu weex baax na xar mu weex li muy def ci ngëneel li muy def ci yokkute bari na araj dégg mhm. ah, ah, la ca nekk ci ay ngëneel dafa bari euh, ci loo xam ne wàllum woote woo xam ne da cay nekk waaye bu fekkee ne nag xarum tabaski béjjën bu ñuul ba li ñuy wax mànkaane koo xam ne ku la dóor daanu wala ku la bëgg indil problème ki ci béjjënam xarum tabaski nga koy jël mu ñuul ak ban sëñ Cissé nga ne ma cat du dañ ci nit cat du tàggalikoog nit cat yëre la des koy fóot mm-hmm. waaye nga ne bu fekkee ne rey nañ xarum tabaski laata ñu koy rey ñu taxawal ko sang ko sang bu mujj. sangit googu ndox moomu ñu dékk ko. sang ko nit ki li des ci dundam cat dootu ko jàpp. waa xam nga cat. tegtal dafa bari. loolee nga wax gis nga maanaam xar mi bañ koy ko kii war nañ ko jox ndox mu naan. ndesin moom muy desal ci suur biñ ko war a la. xar ndox mi nga xam ne dañ ko doon sangee it ndox moom boo kiyee ndox mi siit ci suufam noonu. ndox mu nga boole ko moom naan. ak mi doon wàcc ci kawam. loolu yëpp njëriñ la. waaye njëriñ ci ban côté. ñi nga xam ne dañ naan rab daf maa sonal. Mhm. wala jinne daf ma sonal wala dama nekk ci place manuma faa nekk. Mhm. ndox mooma pour ñooñee la. pour la moo tax tabaski la ca nekk ci ay ngëneel nit ñi nag mbumbaay bi moo leen gën moo leen moo leen yitteel. Mhm. jënd naa xar mi un million jënd naa xar mi deux millions te fekk la ca ne ci ngëneel lépp kenn xamul nu mu toll. yow mi nga xam ne nag loolu sa càkkutéef la ak sa bëgg-bëgg euh, fexeel rek loola nga jokkoo ci ak ñun da alaaj dégg sëñ Cissé lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD ak Lutte TV. jaajëfal jaam ñi. Mhm. ñaanal leen yàlla tawfiq ak sutura yàlla am na ko sañ na ko yàlla yàlla defal leen ko ah euh, lii ñu jëm nag muy tabaski gi yàlla nañ ko fekkee ay at yu bëree bëri. lii nuy jox jaam ñi ñu ñaan yàlla yàlla gën noo mën a dimbale bañ man leen koo jox ci dara ji yonent barke Sonko nag buñ fàtte ne annulé na le 29 ba dafa mel ni dégg na sa wax waaw danañ ko annulé man samay wax réew mi ñëpp koy déglu kilifa diine yi dañ koy déglu kilifa aada yi dañ koy déglu te samay wax du ay caaxaan ay caaxaan kon euh, annulé ba dafa doon loo xam ne ba sax moo gën waxuma la bañ ko annulé nañ ba seen yii ñu nekkee amul benn njëriñ kon après tabaski jaru ko jëre dara jaru ko nañ dem campagne yi. ñu mhm. mbokk yi yaakaar naa waxtaanu tey njariñ la waxtaan wi ngëneel la waxtaan la woo xamante ni ñu ngi doon séq ak borom xam-xam muy Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy lii la xam muy dimbalee lii la xam muy jariñee nit ñi tabaski liñ ci soxla mooy yàpp rek. mu ne ma tabaski dafa bëri njariñ tabaski nekkul ne gàtt ba dañ ko war a rey rek dégg ngeen détails yi mu ci def nee na béjjën ba njariñ la nee na der ba njariñ la nee na res ba njariñ la kon mbokk yi xam-xam la fi maam ñi bàyyi woon xam-xam boobee ci la doomu Saloum Saloum bi nekk muy Serigne Cissé mu Serigne Babacar si joxe bii mu joxe yaakaar naa benn rek lañ ci fësal muy digganteem ak liiru jaan waaye li fi bàyyeekoo ci ay xar jëm ci néew doole yi kenn xamul lu mu toll mbokk yi numéro téléphone baa nga noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot. mbokk yi ñu doon topp dañuy suivre ci Lutte TV Impro TV yàlla ngeen am jàmm ci dara jëy Mouhamadou Rasulullah